waaw mooy mooy presque guanaat ba la wax rek cest di dire que suñu weñ suñu feer bi suñu or bi or oru Sénégal bi quinze xaw ñaata tonne di fàtte naa mais cinquante milliards lañ ci am cinquante milliards pétrole bi duñ ci am dara bii di ñëw pétrole bi cinquante milliards la ciy dugal te ñu jël suñu àddina yëpp bokk ci wékk amuñu ful lay exploité li ñu yor parce que mën nañ ko mënuñu ko amuñu moyen investissement yi amuñu moyen recherche mais contrat tamit lu mu dee dee dee nu ñu koy négocier daf ciy compter man ba ñu de tubaab yi jël mais su ma sañoon ñu jël au moins soixante pour cent bàyyi ñu quarante ok mais dix pour cent moom lañu am ci or moom lañu am fii mais suñu alal dañ koy sànni dafa am loo xam ne ni jar na sax ne bu kenn laal fii ak cinquante ans xale yi suñ ñëwee lijjanti ko mais bëndandoo teenu pétrole Sénégal yëpp bazardé ko mais bëndoon ñaar teen doy na les générations futures suñ ñëwee lu ñu fi fekk réew mu ndóol alors que seen seen mag seen maam yi ñoo ko yàq donc ni li li tubaab yi góor-góorloo ba moom seen yëf mhm. mais ñun war nañ góorgóorlu ba contrat yi ci or bi ci feer bi ci lépp ñu fexe ba suñ ko sulee mu nekk suñu alal ci suñu suuf ñu ñu am ci loo xam ne seddoo la mais or bi dañ koy génn fii def ko ci avion ne la raxasaguñ ko suus lañ koy raxasa ci suñu yóbboon cinq tonnes suñ ñu ne la cinq cent kilos la loo ci xam mais xamoo ci dara pétrole bi noonu la nar a daal pétrole beeg milliards yu bëri ñu ci tuddee. ne baax na nañ dem rek waa réew mi danañ génn génn xaalis danañ ci mos a génn ana xaalis pétrole bi. et donc tant qu'on n'investit pas tant que dugguñu ci li ma la wax mbay sàmm chômage bi day gën a bëri ndax sunu croissance bi ñuy wër di wax téléphone yoo ko moom suukar kenn dëkkul ci réew mi. croissance mooy bénéfice rek suñ ko bëggee nañ ko yombal croissance am na mooy entreprise yi ñu ngi dox ndax croissance entreprise ak ñun nit koy kuy fay salaire bokkoo ci mhm. service yi ñoo koy joxe ne liggéey naa temps entreprise yi na liggéey nañ temps supermarché yi ne man am naa daanaka am naa bénéfice am naa bénéfice ñu dajale xool bénéfice daaw bi ak bu ren bi ñu ne ah yokk na trois pour cent ah yokk na 5 pour cent kon réew maa ngi dox su doxee comme doxal yow entreprise yoo xam ne nii mën naa dox ci ñoom te kenn du ci embauché benn nit. Mm-hmm. déedéet dañoo embauché tul te kon su doxee ñoom ñi ngi doxal entreprise yi kon ñi ngi bénéfice embauché wuñ benn doomu aadama su weeru dee ñu jël seen xaalis bu ko France tëdd fa nelaw mais duñ ko. réew mi jabar sax dañ ko fi takk jabar duñ ko takk fii. Euh, tànk mu ngi am moom développement du gaaw. ñoo fi ne ñoo fi toog bi hmm. ñoo moom banque yi ñoo moom téléphone yi ñoo moom ciment bi ñoo moom suukar bi. nekk poor léegi nag dañ cee boole lu bees nangu nañ suuf si ñooy bay suuf sëpp dinañ ko jël te ay boobu yi ñu leen di muy bàyyi ay cinquante ans la. waaw village bu ñu dem nax chef de village da nax communauté rurale ba tëgg leen dara gars yi leen deux cent hectares ñooñu dax a bay ils ont les moyens ils mettent les moyens ñun fii am na gars ko am am nañ moyen yi ñu baal ma ci kàddu ak ñi ma ko war a wax daf dañoo ñàkk jom dem tabax kër almaadi trois milliards moo leen gën a dugg ci àll bi def dara këru 5 milliards almaadi la ban <clears throat> kër weesu na néeg ak pantere ki ki yeewoo yëmbal ak Parcelles nga defee ne ki ki yeewoo almaadi da koo gën am na ku yeewoo yëmbal Kër Massar du moroomam nga kee su tabaxee pare cartable la yor ñaar dërëm yoru lu yor banque ko lebal su dee kër mu ñàkk kër gi mais 3 milliards yooyu demoon na liggéey mu mm, ci investir loo xam liggéeyuñu ñun ñii dañoo sàcc xaalis bi ñi muñ koo génnee ñi ci nekk dëgg-dëgg ay gor te liggéey seen xaalis waxuma ñooñ ñooñu ñu ngi góorgóorlu di def ay entreprise mais ponkal mu muñ la fi wax naan la soo gisee këram gaa ñetti kër yi sàcc la <laughs> sàcc nag day nëbb xaalisam. Hmm. su ñemee génn ana ana dem ba état ndeyi dem ba États-Unis dafa jënd kër. un sénégalais loo koy def kër googu ñaata boulangerie la mën a def fii Sénégal moo tax ñuy chômer liggéey amul ci réew mi état bi investirul ci biir li ma la doon wax léegi go genre goana bay sam napp ñetti yor na réew mi fu ne un million de personnes xaj nañu un million laa la wax. ñetti secteurs yooyu moom yaakaar naa bu ci góorgóorlu woon rek. bu dugg fa. léegi nga casé 3 millions de personnes mais fi la ñu nekk di def seen effet tappale yi ay Prodac kenn xamul lu loolu ñu def ci cent milliards ay ZAC xawma lan ZES ay concept yoo xam ne nii ah man da ñun dañuy dégg ah. je crois que mënoon nañ gën a pertinent hmm. mënoon nañ gën a xarañ fi euh, mënoon a gën a leer te ñu wàññi politik bi ndax amul njëriñ te aqulay taala ñu toog liggéey Sénégal gi neex na liggéey on a les moyens de le faire ku mën a def terre un milliard mille milliards terre BRT bi nar romb cinq cent milliards ku ne la amu xaalis bu ma buñ bayee nekkul waxoo dëkk ku ne la aw ma machine bu ma yóbbu hôpital ne ko waxoo dëgg da nga koo deful. ko jël def ko feneen quoi mais. mais surtout choix yi dara baaxu ci. te te ñu ne kenn du ko fi wax. lu tax nañ ko wax ñu jël si tëj la ah. non nañ bàyyi naxante bi quoi xam nga fii on n'est pas méchant. Hmm. du soxor du iñaan du iñati ñun dañ leen di wax ne. askan wi sonn nañu te problème yi fii mu ne dem leen ngeen régler ko muy bay bi muy sàmb bi muy napp bi muy jàng mm. tey parent d'élève bi ku ci sa doom commencé école primaire laa la wax wala jardin d'enfant yaa ngi bëgg a dee cinquante mille jëm kaw fon fu mu degee soo ci amee ñett doom da ko mën a fay location deux cent quatre cent mille francs da nga ko mën a fay ku ci sa doom am bac ñu ne la cent mille francs par weer da ko mën a fay soo ci amee ñaar doom nag ñu mujj bugg bugg privatiser àddina bi Sénégal yoruñu ñun lu ñu fayee nee naa la mënuñoo fay facture ndox facture courant kenn mënu ko ci fay te doo onku te par deux mois la imagine courant la nag weer cent mille ak cent mille sa ñaar doom dañuy jàng mais il faut qu'on arrête voilà professeur ñu lay jaajëfal xanaa rek ñu jeexale passez-moi nan maa leen sant <clears throat> maa leen di gërëm léeg-léeg sax nga yëkkati sa kàddu mu kawe doo ko tey parce que da gis lu yomba yomba yomba yomb ah ci sama xam-xam nag laay waxee hmm. xëy na sama niveau de xam-xam hmm. mu yomb lool nga gis ñu teg ko fi ne degee dem di def lu gën a compliqué après affaire bi yow dalay jaaxal mais souvent yaa des intérêts derrière okay. intérêt yooyu nga dul xam ay lobila moo tax corruption bi dafa bari corruption bi moo bari lu ñàkk fayda loo gis rek xamal ne yaa benn lobi ne ci ginnaaw ñuy ñaan rek Mhm. yàlla dool ñu sutura. ndax ñun comme que léegi sutura la ñuy dundee moo fi sës di. Mhm. duñu xaru kenn du fi mhm. moom la ñuy ñaan yàlla mu jàppale ñu. surtout les jeunes. j'ai croisé hier avant-hier ci télévision lay wax. un de mes anciens étudiants qui a fait la maîtrise. ñu tax si benn service man ne ko looy def fii mu ne ma non courrier laa doon indi ma ne ko ah foo liggéey mun na ma je suis le président des Jakarta de Dakar man teel laay waxee de ah. moo ma ko wax ah. su dul dëgg su ma ñeneen ñi ne ne ma du kooku moo ma ko wax ancien étudiant deuxième exemple bi benn booy dama paan jël ko mu jëlee ma Touba Diourbel uh-huh. indi ma ba fii ne ma ma ne ko université laa jëm mu ne ma ne ko IFAS mu ñëw ba gaari ci bunt bi ne ma xam naa ko may wàcc mu ne ma monsieur xaaral tàppe téléphone am ne ma monsieur xoolal ma xool muy licence BIF banque et institution financière mu ne monsieur fii laa génne seen école bi ma ne ko ah mu ne ma ñàkk lu ma jàpp moo tax may dawal ilaa tuubaa mën naa joxe turam lii ma lay wax amul lan lu ma ci inventé. Hmm. lu ma dund la sama ay propre étudiant lañ. ma encouragé leen. leneen nag da leen continuer toujours di déposer ci internet bi mais man xam naa ne sonn nañ xale yi Sénégal les jeunes surtout ñu góorgóorlu ba ba nekk la crème de ce pays muy des jeunes diplômés ñooñu waruñu woon am problème. man d'accord naa jeune bu nanguwut a jàng xaruñoo nangam sangam mais fi ne soo waxee ñu naan non seen formation yi formation yi ba ci la mais kuñ képp kuñ ma a formé amoo expérience da ngay dugg ñu lay jàngalaale di la wonaale dans la pratique. Mm-hmm. Mm-hmm. ils son bien formés te nañ gëm seen bopp. voilà le message que je voulais lancer aux gëm nañ seen bopp vous êtes bien formés ku leen ne nelaar na nelaar na na wuti diplôme bi ngeen am. fii kenn ni laaru fi kuñ fi jàppale fi am ak kuñ jàppale wul voilà je vous remercie. waaw ñun tam ñu ngi lay remercier bu baax a baax mi fàttali na kon professeur Meissa Ba mu leen doon seqal euh, waxtaan tey di professeur fii ci université Cheikh Anta bu Dakar IPAS euh, nekkit euh, écono économiste yaakaar naa waxtaan bi am na solo trop macha allah xanaa di leen jox dañ kon dig daje lu yàggul dara rek incha allah ak beneen invité.